Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatu respectateurs yi nga xamante ni yéen eh, a topp site bi nga xamante ni mooy info réew mi mbégte la ñu am tey bi nga di la marabu internasional. international fii ci diwaanam bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam rek jagleel ko askanu Sénégal rawatina suñu sëñ Cheikh Ibrahima ñu ngi leen nuyu di la ziar waaye di la dalal macha allah ci biir émission bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. baytaala ñu ngi lay fay nuyoo. wa inni ya u'isuha bika wa surriyatiha min asaytaani rajim rabbi a'uzu bika min amasati sayatin wa a'uzu bika rabbi an yaqturun la qawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim bismillah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi xanaa ñu njëkkanteeg waxtu bi rek fexe fee taataan dara bala bala mu ñëw dab incha allah rabbi fi ñu koy tàmbalee rek mooy gannaaw bi nga xamante ni yàlla dogal ñu ñëw tey dañuy faral di dégg ci nit ñu bëri ñuy wax salaatu ala nabi salaatu ala nabi ñu bëggoon xam lan mooy njëriñu salaatu ala nabi ak lan mooy salaatu ala nabi. Mhm. salaatu ala nabi bay taala <clears throat> ci ni ko borom xam-xam yi tënkee. ak ñaan la goo xam ne dafa bàyyeekoo ci suñ borom subhanahu wa taala ñeel nag mbooleem koo xam ni ab jullit nga bu wekku ci diiney islaam muy salaat boo xam ni njariñ yi mu làmbool kenn mënulaa wax dayob njariñ li fii ci àdduna salaatu ala nabi nag dafa nekk loo xam ni yàlla suñu borom farataal na ko ci bépp nit donte da koo def benn yoon ci ak dundam waaye farataal na ko ci nit ki nga xam ni ab jullit la moom mu def salaatu na nabi ci ak dundam comme ni yeneen farata yi doonee farata waaye yàlla farataal na nit ki moom mu julli ci yonent bi ndax yàlla dafa julli ci yonent bi moom malaayka yi digal ko nit ñi yonent boobu ñuy julli ci moom it julli ci boppam ba pare digal mbooleem xeetam yépp ni leen julli leen ci man ngir ngëneel yi ci suñu boroom dëxañ ci biir waaye ñun ñi nga xam ne dañuy tënku ci njàngalem sëriñ Touba mm-hmm. Serigne Touba dafa ñoo joxoñ sëriñ mm-hmm. sëriñ nag buñ ko waxee mooy koo xam ni dafa lay àggale ci suñu borom moo xam dafa lay dimbali ci jàngal la ba nga xam yoon wi mm-hmm. moo xam dafa lay tërbiya moo xam lu mu la mën a def rek jëmale ci suñu borom Sëriñ Tuubaa dafa ñoo joxoñ sëriñ joxoñ ñu salaatu alal nabi ni ñu salaatu alal bi moo gën a gaaw ab sëriñ nga xam ne moom nee na hmm. ni ab sëriñ di def nit wammat ko ba ci boromam salaatu alal bi day def noonu nit wammat ko ba ci boromam waaye salaatu alal nabi dafa man ñaar yu sëriñ mënul salaatu na bi jamono bu la jëmee ci suñ borom day xëcc sawara di la ko soril di xëcc àjjana di la ko jegeel te ab sëriñ mënul loolu moo tax Sëriñ Tuubaa ni salaatu ala nabi dafay jàpp ci loxoom nit ki comme ni wasila di jàppee ci loxo nit dox moom ba biir àjjana dugal ko fa te boroom xam-xam yi arif yi nee nañ amul benn nit boo xam nitu yàlla la buy liggéeyi salaatul ala nabi te àddunaam diggante ak boromam leeru ko fii laata ma faatu yaa ngi dégg mm-hmm. salaatul ala nabi nag daa bari tëggin tëggin yi wuute na wuute gu yaatoo yaato waaye tëggin yëpp ngëneel la waaye li ci wér moom mooy boo ci yor rek li man ci yow mooy dalay wan suñu borom subhanahu wa taala loolu mooy salaatu ala nabi bay taala kon tëggin yi daal mooy mooy mooy li may faral di dégg ñu naan salaatu bu ko. waaw ndax dafa am nag boo xam ni mooy bi yonent bi tëggal boppam am boo xam ni mooy bi awliya yi tëggal boppam waaye bu ci mën a doon boo ko yoree di ko doxal rek day dox ndax awliya yi ak yonent bi ñoom daanaka benn lañ ndax bagage yonent bi rek lañ yor day def nag jamono bu ne ak lay dox jamono bi nga xamee ni nit mënut dox te bind lu lettre yónnee lettre bi mu defi fan borom jot ci bokk teg jamono bii nga xam ni mën ngaa boole ñeen fukki lettre ci ñeen fukki nit ci benn message kon tëggin yi loolu mooy waral wuute tëggin yi jamono yay sensé waaye salaatu bi moom salaatu lay doon boo xam ni yonent bi ci boppam jamono mën naa jot mu feeñu ab awliya u muy nitu yàlla ni ko doxalee leen ni salaatu bi loolu loolaay tëggin waaye tëggin yi wuute wuñ jamono yee wuute ak nit ñeeg seeni bit ak aajo yi ni muy toll voilà. kon daal tollu salaatu alam na daal am na tolluwaay maanaam mën a feeñoo ci jëmm fi mu toll nii daanaka. Euh. Euh, man daal li ma ci xaman mooy. Hmm. Eh, salatu alal nabi ci boppam du nit kese ko soxla loo xam ne malaika da koy def nit di ko def yàlla di ko def junne yi di ko def mala yi di ko def boo xamee loolu leneen lu dul salatu alal nabi ci loolu waxuma ko hmm? lenn la yàlla siq nit ñi gana bi leen bindee ànd ak ñom diko def muy julli ci yonent bi loolu lool nit ñee koy defal yalla waaye julli ci yonent bi mom yalla dafa ne man maak samay malaika ñi ngi julli ci yonent bi yeen nit ñi julli leen ci yonent bi yeen ak yonent bi kon lu ko gëna matalé amul ci suuf ci ñu dox bay taala macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima jaay ci leeral bu am solo bobu ma sha allah ndax day tax nit ñi tamit gëna mëna gëna mëna xam gëna xam fu ñu war mëna tek seen tank ma sha allah rabbi bokku na ci tamit dañuy faral di dégg euh, la ilaha illallah muy sikrullahi mhm. njëriñu sikrullahi rawatina baatub la ilaha illallah waaw sikrullahi moom àdduna wërngal kep lu nit def tuddi yalla ko gëna mag mhm. lu nit di def ci kaw suuf rek tuddi yalla ko gëna mag màgg nak neena yeen mourid yi nga xamni yeen da ngeen di tudd yàlla mhm. maa leen wax ni amma akbaru Euh, lu waay mën a yanu indi ko ci yéen ci aw tur yàlla ak lu leen ca mën a wax nee ko sëriñ bi jox nañu baatub laa ilaaha illallaah te moo gën a màgg sa tur wi waxul ñu yem fa naan ko nii nañ ko wax ni ko tur wi sëriñ bi jox mi laa ilaaha illallaah moo gën a màgg sa tur wi leen nag bu dee ku mën a werante la ak koo xam ni daa bari bagage kam gën a mu dugg fa nee leen ko bagage yi moom leen na ci leer muy alxuraan nañ dem nee yóbbu leen ko ci alxuraan wuti fa aw lañ bu ngeen demee di ngeen fekk suñu borom ni waqimu salata inna salata tanha anil fahsai wal munkar wala sikrullahi akbaru su weddee waxu yàlla nag jërul ngeen gëm waxam bisimilah baatam jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye tubaarkalla ci am solo boobu waaye itam référence bi dafa dafa dafa am solo bokk na dañuy faral di dégg euh, baatu bàqiyaati bàqiyaatu saalihaat mhm. ñu mooy lan lan la mën a defal doomu lim man ak lim mën a defal doomu adama yonent bi wax na ko mm-hmm. nee na yomal qiyaam suñu boole woon mbooleem jëf ju baax ji nit ñëpp bokk ànd ko def ñoo junne yi ñu jël ñeenti baat yi teg ko ci balance jël jëf yi àdduna sëpp teg ko ci balance yi daanee ko muy baqiyatu sa te mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar baat la yoo xam ni li nit ñi andando di wax ci kaw suuf la ci gën mooy baat yooyu hmm? baat yooyu ah xamna ni daal doomu adama bu amé soxla so xamni man na jël soxla si tek ko ci kanamu bad yoy te mënu ko fañ man xam ma soxla sax wala ku ko am nga indil mako ñu xol way soxla su mëna genn génn bàqiyat sa te fajuwul amul ci aduna bi ñuy dox wala amul ci xarnu bi ñu xam macha allah. Mm-hmm. jërëjëf Serigne Cheikh ci leeral boo am solo boobu ba tey wax dëgg yàlla ndax loolee moom itam daanaka mel na ni mucc na ayib lool bokk na ci tamit euh, sirul bi nga xam ne moom la ñuy wax sirul kaw ni la kaw ni moom madad duhu siru sahri ilan foo déggee sëru kaw ni sirul kaw ni mooy secret nit ñi mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. secret bi nga xam ni doomu aadama boo ko yoree soxlay nit ñi daje ci moom mu mën koo faj loolu mooy sirul kaw yaa ngi dégg waaw sirul nag daa xóot waaye daal mooy li nga xam ni moom lañu war a dimbalee doomu aadama yëpp bay taal tey doomu aadama yi yëpp daal fi mu ne moom si loolu kaw ne googu fi mu ne daanaka mën na faj soxla yi ku lu doomu aadama waaw ak soxla su dul soxla yu doomu aadama njëriñam njëriñam daal maanaam tolluwaay déedéet ak soxla su dul soxla yu doomu aadama dul soxla si doomu aadama waaw maanaam suñ borom sax bu soxlaa lu gaaw si siru kun la koy doxal jibril demal bala lii xew na lii xew rapidement jaaree ko ci siru bi loolu la koy wax kon du soxla ci doomu adama dong ko tax a jóg yooyu mooy xam-xam yi nga xam ni euh, moo tax ñuy wax moo tax nit ñiy jóg moom la ñëpp seet mooy li leer bu bëggee dégg suru ko ni mooy lan mooy xam-xam yi leer yi nga xam ni du lu ñuy làmbaatu te du yi nga xam ni euh, kum neex rek jot ci wala ku bëgg a jël jël yaa nga dégg waaw dañuy wax ni ku yanu da ngay lo attan mm-hmm. suñu ko nu ku ko yàlla yenul attanu ko waaw loolu noonu la dem baytala jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima allah bi yal na yàlla te dolli mm-hmm. bokk na ci tamit fi mu mi ñi ñi daraja mm-hmm. ñu bëri lool te kenn ku nekk ak façon ba koy woote moo ma ne ko laaj lan daraja waaw daraja dal yonent yi bu len suñu borom di dara jall mm-hmm. euh yaakaar na ni kuñ ko leralon suñu gars di nga tay yaa ngi dégg mm-hmm. yonent yàlla ayuba mm-hmm. eh, dafa tawaton tawat jo xamni moy tawat ji gëna metti ci kaw suuf biñ ko yonent bi netali neena suñu borom jullu ci wol dul yok ay dara jàmm yaa ngi dégg na ba sax yi di dund ci biir yaramam ci biir feebar bi sikuraatu dee nga xam ne li muy métti métti sidina ibrahima biñ ko laajee ni ko noñ ko mën a leeralee dafa ne bu ngeen foroon am picc muy dund ngeen sànni ko ci ak diw di ko saaf ba mu faatu ca biir diw ga waaye li muy lakk ci biir diw gi lépp deewul mu ne méttit woowu sikuraatu dee ko gën a métti ayuba ni det man kat sama fever, ba sax mo gëna met sukratu de mo gëna metti lolu ngeen di wax ni moo dal mo dal kon xam nga lolu metti na suñu borom ni suñu borom da ca ju yonent bi ni suñu borom da caa jublu woon daraje ayuba ñu ci yonent yalla bo xamni ni dafa dugg ci garab ñu boole ko garab ga xar yonent bi ni dañ caa jublu woon yokk na ibrahima namrus da ko jël Bakku ko mu tabbi ci biir sawara sawara wa suñ borom ni yent bi ni sawara wa suñ borom du ca jublu won yok darajay ibrahim yaa ngi dégg xam kon daraja ndaw daraja nak lam doonon lañ dindi def ko lam doonul won suñu jitu rew ni da ngay fekk ño xamni ni dañoo yor ala rek ñu ni mi daraja lañ déedéet di woote daraja sax daa bëri ci réew yaa ya, ngi dégg daraja ko ko xam doo ko woote ndax yombul sëriñ bi itam mboolem natt yi ko suñu borom tegoon da ko doon yéegee da doon yokk ay darajaam ci diggante ak moom yaa ngi dégg kon loolu mooy daraja na leer waaye yii fi am nii yi moom yëfi gaay la rek da nga wax bi yëfi gaay la rek waaw gaay la ak bagage daal tubarkal la ko ko kan léegi ci sa biir wax ne si ku tedd kii fi mu ne yokku yokku dara jaar na war yoon yenn natt yi parce que question bi ci toppoon loolu la dañuy dégg nattu man dama jàpp ne nattu moom lu suñu borom di teg doomu aadama bi la nattu sax ñi nga gis ñu ñàkk dëgg dëgg dëgg suñu borom dinañ ko dara jaale ñi nga gis ñu feebar feebaru metti wax na la ko suñu borom dinañ ko dara jaale yaa ngi dégg waaye ñuy woowee borom dara ja ci mi Euh, gaay ko bëgg def loolu waaye bokkul ak li nga xamante ni si ni mooy dara jabaay taal. ci leeral bu am solo boobu noonu xol bu waaw xol bu yàqu ay bàkkaar yu bari dina ko wane dina ko waral. Mm-hmm. yonent bi ne woon moytu leen iblis nax leen ci juróom. seen juróom yii bis bu ngeen xoolee ba seytaane jël ko yéen sama xeet wi laay waxal sans sanseel leen ko juróomam yi mooy yàqu ngeen danga dégg nee na yuhibbuna al ams wa yasoona al ams yuhibbuna dunya wa yasoona al axira fexe leen ba iblis bu mu jël adduna naxee leen ko ba ngeen fàtte seen al axira nee na yuhibbuna al maala wa yasoona al xisaaba fexe leen ba bu mu jël alal nattoo leen ko teg leen ko naxee leen ko ni ëllëg yamal xiyam dina ko dinañ ko xisaab yàlla dina xisaab at alal ji at leen ji iblis naxee leen alal rek ngeen topp alal topp alal ba fàtt bis ba ko yàlla lijjanti ci yéen mooy tax alal nga gis nit yor ko lu ko neex mu def ko ci fo mu ne mu def ko ci fàtt ni ëllëg dañ koy xisaab dong te iblis ak ko fàttaloo waaye ko am alal te xam yàlla da ngay ragal alal ji dégg bi nee nag bu mu leen toppaloo seen kër yi ba mel ni sama kër gi fu ne nga décoral na nga teg fa may wax de nee na boobu moytuwul iblis dina la naxee si biiru bàmmeel doo fa def dara te bàmmeel mooy kërug jullit hmm? yonent bi nag nee na lenn ma gën a ci iblis te dama tiital tiital yàlla mi leen bind mooy da leen di defloo bàkkaar yu bari fat la tubloo waaw fi ne koo gis daa yenu ay bàkkaar bu mu bëgg a laal asamaan sa te pareegul pour tuub ko. waaw ah, parce que newu ci xel ma. waaw te itam yonent bi nee na ñaar yii ku ko indaale yomal xiyam boo moytuwul tabbi sens. Mhm. mooy bàkkaar yoo jéggaluwul yàlla. ak bor yoo fayul. Oh. dégg nga wax bi. Mhm. lenn nag la yàlla teg ci alquran daj ñëpp jàng ko. Mhm. mooy istixfaar. nee na mooy cuub gi nga xam ni mën naa fekk lu ñuul cuub ko ba mu weex moo mën a defar xol bu yàqu lu dul loolu xaala seex rek la te ab julli dëgg dëgg baytaa la ci ñaari xaala lay tënku nee naa la xaala yi du ñett xaala allahu yàlla nee na xaala rasulullahi yonente bi nee na arrêtel boo duggee ci xaala keneen nee na rek débat bi day judd tam mboolem ibaaru yi dinañ la posé question wahhabi yi posé lay question salafone yi posé posé lay question bañ a tontu daw nga bañ a ragale tontu question yi day tax nga jël askan wi bëgg leen laytaa laytaayee ci ay tappale dégg ngeen li wax yooyu ne yow yow ñuy waxal kay tontu li ñu la wax rek foo fekk tamit ku ragal tontu masala daa bëriwul lu mu xam ay nit suñuy wax ak yow woo la ci xam-xam te nga am xam ci am rew du ñak débat dé mhm. ku fi woote lu kenn xamul it fi la nit ñi taxaw di wéddi ndax ay nit nga nga ci wo waye masala mo indi mhm. kenn minu ko ci téré yi mhm. ñun lu ko bind mu jaral la lu ne nga dugg ci mag mu ne nga wéeru ci ginnaawam làqatu yëfi ragal rek la ku la wax lu leer tont ko lu leer ku la wax loo xamul na ngeen ko xamuñu ko noonu la loolu la nag yoo xam jamono jot mu dañ ndax li wér kenn du ko nëbb te mag moo wéeru ci yàlla jëmoon kon luñ la laaj ci yàlla te nga wéeru ci mag leeral ko soo ko mënta leeral nag nga bàyyi ñi lay laaj ñu laaj ko keneen ko ñu ko mën a leeral bàyyi tànn jërëjëf sëñ ci leeral bu am solo boobu bokk na ci xam naa ne wax nga ko léegi euh, bu ma la déggee ci sa biir wax maanaam tuubal suñu borom daal istifaar bokk na ci bi ci gën a istifaar waaw istixaar la ñuy wax mooy tuubal yàlla astaxfirullah ci lañ koy defee yaa ngi dégg mm-hmm. moom moo mën a yokk doomu adama ci alal mm-hmm. ndax suñu borom dafa ni ndab lu set ma def ca dara jigéen ñi bu ñu yekk añ duñ ko def ci bool bu tilim de yàllaat ka saalika bu lay tëbb ci leeram yi du fekk ku takk rëpp mu koy tëb moo tax mu ni tuub leen te baril tuub gi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na moom adduna la ca yiis mooy bari bàkkaar te tuuboo ko te bàkkaar moom kenn du ko tuubal kenn ku nekk yaa koy tuubal sa bopp bayta la waaw loolu mooy la am jër jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima xanaa rek euh, ma xool xam naa ne ci question bu mujj bi rek ndax euh, laajoon naa la ko fan yi weesu na la bu jamono tollee fii xat-xat yeeg réer meeg coow la yeeg naka la doomu aadama yi war a def nga am loo ma ci tontu woon waaye am benn message boo lancé woon waaye mu mel ni message bi nga lancé woon doonoon na message doonoon na yóbbal ñu gis ni tey jii tamit fi ne la nga la nga waxoon ci jotaay boobu itam tey jii njiitu réew meeg ñi ñi mu àndal ñëpp dafa mel ni dañ la fekk si ci le message bi nga lancé woon. mooy waxon nga serigne ci nañ nañ nañ ubbi juma jakkay bayyi activité yi mu delu wat ñu jema dund ak jangoro ji nga xamni natuk suñu borom la. Mhm. donc tay bi nga défé bi nga défé message lancer message bobu tay ji mu melni man bu man mi féké won jotay bobu mhm. féké wat tay ji li xew. dama nan est-ce que tay ji gouvernement bi déggu ñu yaw sa wax joju ba tax fi message ba nga lancer won ñu fekk ci waaw gouvernement bi mom hmm. kiko jité bi ko yàlla teg ci kanamu nit ñi ñëpp a fi ne am na ñeneen ñu ko bëggoon Sénégal nag dañuy jaawale opposé doomu aadama ci ndigalul yàlla la muy doxee réew mi bul fàtte ni ñun kilifa yi toogoon nañ fii ni yàlla tànnal ñi ku gën ci ñun mu jiital ñu réew mi yàlla yëkkati mag Sall ko fi su ko defee nag gouvernement bu ko yàlla jiitalee ba pare xeex ko contre ko amul solo xam nga Abdou Lahab wala xamoo ko waaw xam nga ko xam nga lu ko dugal sawar mooy bi yàlla jiitalee yonent bi def ko ab yonent moom dafa bëggoon yonent bi ni ko yàlla defee ab yonent yàlla dindi ko def ko ko moom bari na opposant boo gis ci réew mi muy ngalal lay mm-hmm. waxi réew mi taxul waxi boppam dong nga tax te fiñ ñu toll nii nag askan wi réew mi kilifa gi ñu ko dénk askan wi ko gën a xam réew mi ndax ñoo ko dénk te am na ñu ko njëkk a judd foofu na ci réew mi. Mm-hmm. dara dalu ko nag. Mm-hmm. loo xam ci réew mi réew mi yaakaar ni xamu ko xam na lu ko raw ci réew ndax moo jiite ñëpp. Mm-hmm. su ko defee bu déggee dëgg dina xam ne dëgg la bu déggee caaxaan dina xam ne ay caaxaan la koo xam ni li koy renseigner bokkut ak li lay renseigner ndax ñu bari fi mu ne xamuñu njiitum réew loolu dinaa la ci wax lu baree bari bari ndax benn. suñu borom mi ko dénk réew mi moo ko ko tiiñal ngir mu àttan ko waxoon naa la ni lay nit a ngi topp fii lu ne wax ko ci président bi bu ci seetul woon yàlla bu ko wanee dooleem moo xam ne am na lu ko yàlla dénk waaye nag ku yorul loo xam ni ñëpp a ko soxla faw nga muñ gouvernement bi muñ loo taxamal leen ni itam noonu la àdduna doxe ku mos a jiitu sonn euh, njiitum réew du ragal coono waaye nag nay doxee dëgg te bañ a déglu caaxaan est ce que li ma leen di dénk ci fi jamono ji toll nii mooy nañ ragal yàlla jot na xool li ñuy lekk lu doon xool itam suñ diggante jëflante yi ñu rafetal ko tuuti loo xam ni nag dafa séree loo xam ne dafa séree baytaala kuy dund di ca àgg ku ko jub war koo sóoraale waaw te jub nañ loo xam ni mooy dëgg dëkk bii ñu nekk muy réew mii ku fi yorul dëgg doo dem ndax ñi lay yóbbu ak li lay yóbboo dul nangoo dem kon nañ defaraat toogaay yi yaa ngi nañ defaraat toogaay yi kenn ku ne la nga yor nga doxal ko ci njub te xam ne lool rek moo la mën a dimbali ci lool dégg nga wax bi su ko defee itam Ah, maa ngi jégglu ndax dinaa lancer message ndax am réew boo fa bokkee bokk ci kilifa yi bu jamono yëngoo ña jóg taxaw te jamono ji ngir yàlla félicité leen te gis naa ni man ci sama bopp li Sëñ Muntaxa def mooy taxawu ak njabootam te la xamal gouvernement bi ni leen man taalibi Serigne Touba yi nga xam ni doyloo nañ Serigne Touba tamit seen kilifa mën naa leen a dimbali te li ma leen di dimbalee mooy. xamal leen rek leen suñu borom xamal waaye nag doomu aadama boo xam ne daa xiif ba jël décision yi boppam kooku dimbali ko mooy jox ko lu dundee rek ndax loolu la ko yàlla dimbalee yàllaa ni bu ngeen xiifee def leen lii kon boo yoree ay nit ñu ne ci coono sonn lool dimbali leen ndax yàlla la ko digal maa ngi koy félicité ci kàddu yi nga xam ne génne na ko ngir njaboot gi yëpp ak yéene yu yaatu rek jëf yu rëy yi su ko defee itam état bi muy gouvernement bi itam ndimbal yi mu génne ngir askan wi loolaat maa ngi ko ciy félicité ndax bi mu koy def fi la ma fekk te képp kuy seede na nga seede loo xam wax kiraamun katibin la alquran wax loo wax fii di nga ko waxaat fële dégg nga wax bi ak yéen média bi nga xam ni feebar bi mu dugg see ci réewam ba léegi jàpp ngi ci seen kem kattan ngir dooleel nit ñi man waxuma ay dooleel yi kii ak dooleel nit ñi nuñ mën a muccee te loolu kenn jiitu leen ci ndax ku xëy dégg dara te fa ko déggee ay journaliste fa nekk rek ak i site yooyu noonu ñoom ñëpp it maa ngi leen doon ñaanal ci diiru li ma tëju te itam maa di félicité ci liñ defal réew mi ndax réew mi ñun ñëpp ko bokk nañ gën a rafetal taxawaay rek baytaal incha allahu lépp dina baax. <laughs> waaw léegi nag. so ñaar bi doomu aadama yi rek ñu gën a gën a gën a fagaruwaat gannaaw jàngoro ji moom njiitu réew mi nee na nañ fexe dëkk ak moom te jéem a xool nu ñu dundeek moom waaw so ñaar leen ci loolu rek fi ne xanaa ñu yëkkati jotaay waaw ñun daal lépp luñ xamul dénk nañ ko yàlla kon yàlla nañ ci yàlla dimbali ñu def ñaanam asubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in